Ndiobas Info TV nañu wax ak Ndiobas. ma nuyu suñu responsabilité bi ñu naan te ñu mën ma leen di gërëm soxna Mati soxna Rama soxna Ndeye Mali Moustapha Ibrahima. di doom suñu xarit su wëlëwee moom ñu lay jóg nekkoon membre fondateur yal na yàlla jàpp leeral xarit àjjana yi gën a kaw di nuyu ñi ma juugaan itu, ak ñi dëddu kita ma ñëwee juugaan tey mais parce que dëkk bi di jóge ku na mel ku na mel au téere ñu jàll ci ma vraiment ñoom Djibi Diop loolu lii moo def ba Fapal kon defe naa bu fekkee 2009 fii ñu tàmbale woon yàlla suñu borom nekkale ñu fii kon yaakaar naa bu ñu ñëwee tey ndàmpa li ñu naan pour dem le 23 janvier ndàmpa li ñu koy jëlee incha allah luy xëy na jaay maam Aliou Diop ndax xam leen ah jarbaat moom mënul teggi di jaay ndax di jaay dafa am valeur lool jarbaat nuyu maam Assane nuyu mbokk yëpp fàttiku ma kenn tey bés bu rëy ndax ci jarbaat dafa ne woon

waaye chef de village bi nag tudd na Sobel chef ci sunu maam ma Sénégal kon bureau bi mooy ñu waxtaanee lii ñuy dëgmal muy élection gox-goxaat ngeen war a tànn ñeneen di toogal di saytu seen ay tool. saytu école xale di saytu seni wérgu yaram di saytu courant di saytu yoon mën na leen kultur ya di saytu culture yaakaar naa ñii ma dara bu ngeen leen wóoloo yéen waa dégg leen ma leen di man sant bu ngeen leen wóoloo dénk leen leen seen ay tool ndax ñii duñ leen wor Notto Diobass nar nekk commune boo xam fa la aéroport bi nekk Notto Diobass nekk bërëb boo xam ne fële suuf nekk Notto Diobass nekk bërëb boo xam ne fële Notto Diobass Smart City nekk gars yi amul xam-xam dégg naa leen waaye baax na Ibrahima bu leen bett ku réer dafa rek point bi ñu ci programme bi ñuy tabax mooy le plan d'aménagement et d'urbanisation de la commune de Diobass loolu ñu ngi ci te li ko jiitu mooy le plan d'occupation des sols fii usine di nekk xam nañu ko fii agriculture nekk xam nañu ko fii dëkkuwaay bi nekk xam nañu ko plan boobu adopté nañ ko au conseil municipal fii nag diggante aéroport autoroute ak Diobass loolu mooy le triangle du bonheur ñun war nañu xam li ñu yàlla may Notto Diobass moo am bërëb boo xam ne moo nekk diggante aéroport autoroute ak Diobass kuy tukki tuuti war nga xam ne àddina bi dëkk yi gën a développé mooy ñi dem aéroport te autoroute loolu la waral une zone économique bu ñu tuddee notre Diobass Smart City loolu ay lépp nit da ngay xam mbaa nga ñàkk plan d'aménagement et d'urbanisation du Diobass plan d'eau, mu ngi dans le programme pour ñuy le programme N'y a rien. dama fàtte wax 2009 bi ñuy ñëw suñu programme ci électricité la woon yoon santé ndax bi ñu ñëw 2009 Diobass mosul am ambulance médicalisée kon suñu programme 2009 mënul nekk la même chose que le programme de 2021 kon loolu kese ay gàttal ndax yeneen yi day sori li may daaneel mooy. ñu jeunesse la zone économique sociale c'est la zone de l'entreprise création d'emplois n'est pas élection locale la commune n'a pas la compétence de créer des emplois mais si elle a la compétence de créer une zone économique où seront logées les entreprises, et c'est là où nous allons proposer des emplois pour la jeunesse, notamment la jeunesse diplômée. L'homme de l'imagination, ça a créé créer leur famille, Nous ne pas élèves. Demain, Dubaï. Dubaï, à l'eau, il y a 30 ans, désert, dernier. Mais seen cheikh bi dafa décidé ni fii mooy nekk xolu àddina y a 30 ans ñun suñu rêve mooy zone bii ñu leen wax diggante aéroport autoroute ak Joba ku jàpp ne fii ak 10 ans du exploité développement amuloo la zone free zone l' aéroport le port de Ndayane zone la nekk fi aéroport nekk port bi gën a le plus, les plus grands marchés, Dakar, Thiès, Touba, Zongo, il faut en faire une zone économique. C'est pourquoi la coalition Beno Yakar a proposé la zone économique notre massive. Si vous avez la compétence professionnelle, on vous met dans un contact d'entreprise. Le reste, c'est vous. Dès que le nez, après le faire. Mais notre débat, c'est 60 000 habitants 60 000 habitants Vous les 60% de jeunes ça fait 36 000 jeunes ça fait 36 000 jeunes Quand vous proposez un programme extrêmement ambitieux comme la zone économique de Diobass Smart City Malgré ça, le candidat bu ñëw 36 000 emplois le 23 janvier Vous ñëwee ne pas Alioune Sarr mooy baat campagne bu yokk fan na nit ñi bàyyi naxaate nañu bàyyi tappale nañu bàyyi fait de fausse promesse nañu bàyyi la démagogie yor réew bu caaxaan askan wi tas seen yaakaar loolu dara ko bëgg mais bu jàppalee coalition bii ñu ànd ak la jeunesse ànd ak les compétences de Diobass la zone économique où le plus grand délai santé d'Afrique est prévu, la zone économique, où vous avez déjà des entreprises qui ont déjà soumissionné pour s'y installer. Yakarna, l'ONU, moi donne des opportunités justement à la jeunesse du Bas, des opportunités à la jeunesse du Sénégal. Quand jeunesse du Sénégal, sur à annuel, c'est vous engager dans un projet économique ambitieux, notamment les diplôme. Maintenant, je suis prêt pour rendre avec la jeunesse uniquement dédiée à cette zone économique spéciale. Bon, nous avons déjà eu une audience avec son excellence, monsieur le président de la République, et l'ensemble des 15 entreprises qui sont prêtes à s'engager dans ce domaine. Notamment Telium, notamment le groupe Kanazoé, notamment le groupe Colomb, qui travaille sur le data center, à et

à mais ay conditions yu oyof comme dañ leen di louer ay jakarta ngeen di verser mais mën ngeen jëndal seen bopp ngeen verser seen bopp li ngay jëlee jakarta jàmbur di ko verser chaque ba chaque mois mais jëndal sa jakarta bopp verser ko sa bopp donc loolu créé nañu une antenne la fii à la sous-préfecture jëloon naa ñaareel xale kenn ki aane la dëkk kenn ki jumaat la dëkk muy doomu Oustaz Assane Faye yaakaar naa comptabilité la def nu mu tudd Aysatu donc Aysatu ak eh, donc Aysatu la fi aane ak Aram Gueye Aram Aram Gueye ak Aysatu ñoom ñoo yor financement yooyu pour la jeunesse dañ jël ay jeunes pour ñu waxtaan ak yéen kon altine suba dem leen au niveau du point de la DER bi nekk Notto ngeen préparé seen dossier benn condition kese mooy nangu leen fay garantie bi moom du ñu leen ko laaj du ñu laaj kër du ñu laaj oto ndax Alioune Sarr Ibrahima Thiandoum Ndeye Ndeye Mati Ramati doy nañu garantie pour yéen loolu lay kilifa di jëriñ kilifa ko crédit day wax nit ñi defal ko donc la jeunesse de Diourbel loolu la waxoon naa leen ko wax ma porte ouverte pour ñu toog ensemble ils seront en formation professionnelle Ils ngeen dans les métiers de l'aviation dans les métiers du tourisme et de la restauration dans les métiers du BTP dans les métiers de l'électricité avec les centres de Diamniadio donc nous sur une compétence professionnelle renforcement des capacités pour nous gis organiser mettre en contact avec les meilleurs centres de formation Lolo, moi c'est moi compétence vous avez. entreprise bu ngeen dem wane seen diplôme wane seen compétence professionnelle mais ñu ubbi leen bunt yi li ci des nag ay relation la bu ngeen demee gis Ramati ne ko damaa soxla dem Sonacos mais bu woo boo jëlee fa nag directeur général la Sonacos boo nekkee dans le domaine de la santé ngeen damaa bëgg a def stage Babacar Diagne fii la jógee léegi ñu dem boole la moom ci wàllu kàllaante bu ngeen nekkee transport aérien bëgg a dem aéroport ah xanaa mën nga góor naa ci mën

ngeen jël benn car ñu fay location bi mais ramatik jël leen indi leen aéroport ba yóbbu leen Dantec ba yóbbu leen au niveau de de transport aérien c' est de l' organisation et bu leen déglu ñoo xam ne c' est des oiseaux de province de augure amuñu projet amuñu idée ils sont là des centres de conscience. wax Ndiébassirou TV